puis pour être honnête je crois que ah, dans l'histoire du Sénégal au moins je crois que lamb bokk na si ñu njëkk indi vaar Sénégal dans l'histoire et lu fu ñu ko indee c'est en lutte traditionnelle pourquoi parce que simplement foofu bu ma dajeek yow euh, laaj na automatiquement ñu xam verdict pour ne pas attendre demain parce que c'est à l'issue du verdict si la ñuy xam. qu'on donne le le cachet voilà non nag bi. Ah. voilà c'est mais <laughs> fa la ñuy xamee ba xam man ak yow dañuy man maay dem wala yow yaay dem. donc foofu moo taxoon ñu indi fa vaar. ça se passe dans nos tournois CEDEAO ça se passe dans nos tournois de drapeau chef de l'État et cetera et cetera ñu ngi réfléchir par rapport que euh, lutte avec frappe bi mais paramètres yi ñoo bëri pour être honnête